naafiq <laughs> patriote yi maa ngi di nuyu bu baax di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay di wax ne Dakar Dem Dikk ña fa nekk DC Assane Mbengue ña def na leen kaay leen jub ñu lànk ne ko doo jub loolu li muy moom mooy Sénégal gi muy DC muy ministre képp koo xamante si nii amoo ci fulla am fayda ci liñ la dénk wallaay lancim doo ko doxal parce que ci liñ tàmmoon mooy di chantage nit ñi ak di tappale nekk ci ay ginnaaw syndicat ay syndicat lan fekk ay politiciens déguisés lañ léegi nag loolu moo dakk ci Dakar dem dikk ba tax na ma sekk mii takk rajo yi fu nekk mu dugg fa ne maanaam jub gi nga xamante si nii bëgg nañ ko samp ci réew mi te Sénégal euh, Dakar dem dikk bokk ci direction yi Sénégal yi ñoom ñu ne Dakar dem dikk moom fu nekk mën naa am jub jubal jubbanti ba mu des Dakar dem dikk loolu du dëgg moo tax ñu ngi wax Assane Mbengue foofu nga teg sa tànk bul reculer bul arrière bul dellu ginnaaw lum leen jaral pour que Dakar dem dikk dox ci ak dëng na la jaral lu ko raw pour dakaar dem dikk dox ci ak jub prestataire ya laa jot téléphone nee nan ma soixante quinze mille nga fekk seen salaire boobaak léegi yokk nga ko cent mille francs waa ji génn na prestation amu fa waxoo benn dëgg ay syndicaliste lañ yoo xamante si nii dañoo am ay politiciens yu mu daan politigal DG bu fa ñëw Macky Sall ne DG yi ku ci gën wut sa baas dama lay dàq waral ñu jël ñooñu noonu nome leen fa ñu nekk ay politiciens nekk syndicaliste noot travailleurs ya loolu la Assane Mbengue ñëw dajji sànni ca àll ba waral ñoom ñu xëy tak seeni radio ne nañ fexé ba salfaañe ligéyu Assane Mbeng mais lolu ça ne passera pas lolu peine perdue le président euh, Ousmane Sonko du ragal Assane Mbeng mi ñu tabb fofu gëm naa ne du ragal te japp yota yota seen wax yi ngeen di wax ak di wër radio yi du tax mu rëkk rikk la yota ci lim bëgg def parce que li tax ñu fal ko mom moy jub jubal DC buñ ci fal ngay ragal ak tiit ay syndicat ba ñu wax nga reculer danañ la jëlee foofu nga dem toogi nële ñu indi DC bu am fit parce que kër ga moom dana jubbantiku te gëm naa ne yow Assane Mbeng da nga dox ci loolu te gëm naa ne yow santaasu gaa yi doo ko déglu gëm naa ne gaa yi jubadi googu ñu nekk da nga fexe nuñ ci génne kon maa ngi lay wax ne bu reculer bu dellu ginnaaw prestation ya fa nekk ak liggéeykat yi ñoo ma wone ma kontaan nañ ci yow parce que nee na ma dañoo da ngaa fekk salaire ba soixante quinze mille nga yóbbu ko cent mille franc ci ngay doog tàmbali kon jàpp naa ne suñ la bàyyee kër gi nga di ko jubbanti li ñu bëgg ñoom danañ ko am syndicaliste yii ci des nag ay tappalekat lañ yoo xam ne ay politiciens lañ bu bu leen te bu leen réew mi fii da koy yor réew mi fullaa koy yor réew mi faydaa koy yor parce que dafa bari naa féq